tey bokk na ci date yi ñuy taxaw 10 janvier 2023 daaw la daanaka bés boobule euh, la ñu jël rapport cour des comptes mu yitteel fonds force Covid 19 ñu jébbal ko procureur muy xaalis bu bari bu ñu jàpp ni dañ koo luubal ci jamono ji fi mbas mi amee woon ñu génne ko pour dimbali askan wi ak leneen ak leneen loolu la ñuy fàttaliku ak yeneen xew-xew yu am 10 janvier at yu wute ñu dellusi si. janvier atum 2018 si la fukki fan ci weer janvier atum 2023 si la ñu placé en garde à vue ca Kaolack ñaari borom woto yi nga xam ni kon bokk nañ ci accident nga am ca Sikilo te lu toll ci ñeent fukki nit ñàkk seen bakkan fukki fan ci weer janvier atum deux mille vingt si lañu promulgué loi bi criminalisé viol ak pédophilie ak ay daan yoo xam ni kon mën nañ tëj nit ki giiru euh, dundam ñamaloon kon ab waxtaan goo xam ne nii am na ca palais de la république ci teewaayu mbooloo mu takku bokk na ci kuréel yi nga xam dañuy xeex fitna ñi tekk kon jigéen ñi ak ay association yu bokk société civile waaye agence des nations unies loi bi nag ñu njëkk a kon voté ca assemblée nationale ci fanweeri fan ci weeru décembre atum 2019 fukki fan ci weeru janvier atum 2019 ca RDC commission électorale ba nag xam ne kon ni Félix Tshisekedi doon candidat yenn ci wàll yu nekk ci opposition bi moo gagné élection présidentielle bi waaye am geneen wàll bokk ci opposition bi njiit la di Martin Fayulu moom nag kon ne àndu ci fukki fan ci weer janvier atum 2020 ca Oman sultan Kabir Ibn Saïd kon génn na àdduna moom mi nga xam ni kon toog na ci euh, nguur ga daanaka lu jege juróom fukki at ñu taxaw ci fukk fan ci weer janvier atum 2023 ñeel fonds covid 19 rapport cour des comptes bi ñu jox ko procureur de la république gannaaw at bañ joxe rapport bi procureur de la république fan la ci yoon toll lu tax ñu demee kon ay yéextal jëm ci dossier judiciaire bi fekk na ay dossier politique yoo xam ni kon yoon àdduna ci ba noppi ndax yan ci ay kilifa yu ñu euh, kon joxoñooñ ci mbir mi ñeel euh, rapport cour de comptes bi loolee dafa fekk ni ñoom kenn waru leen toppee mbala sax kon ñu xoxatal leen. ngir euh, bi. wax dëgg fa yàlla naqari woon na askan wi yëpp ñun nañ ci liggéey avant liggéey bi war woon ne mënoon na ay manque de transparence yu am waaye comme dañu jëloon ay euh, décision euh, spéciale euh, maanaam régime spécial lañ nekkoon ak benn budget spécial bu ñu voté mille milliards ci biir loolu ñu doon ci xaar tamit pour maanaam organe de contrôle yi ñoom ñu indi def ci seen wàll maanaam askan wi ci euh, passation de marché yi ak euh, exécution marché yi defoon tamit alors euh, li fa xawoon doy na waar yi ak marché irrégulier yi yooyu yëpp Cour des comptes génne ko <coughs> mu doon nag gaax gaax bu rëy boo xam ne ñun dañ jàpp ne moom mandargaal tout simplement li nga xam ne ni mooy mal gouvernance boo xam ne ni moom moo moo moo moo topp euh, régime Macky Sall te loolu la ñu waxoon tamit euh, premier ministre Amadou Ba dañu ñu recevoir recevoir ko organisations de la société civile euh, ginnaaw bi askan bi yëpp wane seen naqar ba sax organisé woon fii ay manifestations publiques pour demander que rapport boobu ñu joxe ko suite. Euh, malheureusement <clears throat> li ñu doon ragal moo am parce que premier ministre bi ñu euh, recevoir waxoon nañ ko ne euh, lii nag mooy wane ni mal gouvernance daal moom moo caractériser régime bu Macky Sall waaye lii amul débat bu ci mën a am ak ñoom li waroon def rek mooy jël ay mesures administratives immédiates ci pouvoir yi ko président mayoon pour sanctionner mettre à l'écart ñëpp ñi nga xam ne tax nañ ci mbir mi ba pare jël rapport bi jébbal ko justice euh, mu ngi fa woon ministre de la justice à l'époque mu nga fa woon di Ismaïla Madior euh, ñu wax leen loolu mais ay fan lañ ci teg mu ne alors moom de jël décision wu def une nouvelle instruction maanaam confier dossier police judiciaire te jàpp nañ ne fale dilatoire bi commencé woon Euh, ba tey jii nag ñu ngi si retard boobu parce que amul darul lu xew loo xam ne ni yëg nañu ko ci wàllu suite yu ñu joxee euh, ci dossier Covid boobu le gisuñu kenn kuñ fi woo koo xam ne ne wala nga fi mbaxane doonee benn euh, pour nga daal di daal di ñu lijjanti say mbir. alors euh, Chérif euh, ni ñu ko waxee coow li bëri woon na organisation société civile yi sénégalais yi tout le monde quand même était choqué euh, la fait que ci jamonoy mbas mi nga xam ne économie bi daanaka dafa xaw a ñu jël koppar gu ni toll di ko saax-saaxee di ko séddoo dikk nga xam ne moom auditionné na woon daanaka lu ëpp si ñaari téeméeri ay nit sax mais jamono ji li ñuy laaj mooy yëf yi fan la mujjee waaw ma nga ca table procureur de la république parce que déjà cour des comptes bi mooy mille milliards yi am na ci étage surtout ñoo xamante ne dañ ne woon nañ ubbi ay information judiciaire am na ci ñoo xamante tamit dañoo waroon a dem fa la nga xamante ne mooy kuréel gi ñu wàllu règlement ci wàllu financier ci cour des comptes fay ñooñu bokk da ñi xam dañu sàkk woon ci mbirum pénal mhm. ñu daal leen di topp terewul le procureur daal joxaat division des investigations criminelles bi mu defee délégation judiciaire mhm. ngir ñu xóotalaat ci xóotalaat googu a wàll woowu malgré tolle bi mu juróon parce que nit ñi dañu considéré woon que xaalis bi ñi nga xamante ni quand même ñooy ay Sénégal ak ay partenaires techniques et financiers mhm. ñoom ñoo ko dugaloon ngir jàppale ko Sénégal ci Covid bi mu tolloon déjà ci mille milliards mais liñ ci déggoon doy na waar trop ci wàllu njuuj njaaj ak ay tappale taxoon na sax gouvernement bi nekkoon ci benn opération de com boo xamante ni même société civile bi jugoon naan suñu milliard du le premier ministre les avait reçus ay affaire explication recevoir nañ sax ses partenaires techniques au niveau du ministère des affaires étrangères ngir jéem a seetal li nga xamante ne mooy état bu Sénégal joxe woon ay garantie di doon ko xóotal boobu ba nag malheureusement y' a pas eu de nañ sax ba ci ay ministre di attaqué ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa Cour des comptes jëm ci wàll woowu ce qui veut dire que mooy leen wax rek Macky Sall dem mais son problème moom ak la bonne gouvernance ak transparence moom mhm. comme yàlla ak yàlla alors que mhm. moom moo fi ni ko doon waxee te gis na fi ay opposants yoo xamante ni tëj leen ci kaso wala ñu jàpp leen ci. ci wàllu mauvaise gestion mais ñi nga xamante ni ñoom ñoo ànd ak moom muy of nag ñi nga xamante ni wala cour de corps de contrôle yi leen joxoñ baaraamu tuuma gisuñ ci benn yoon foo xamante ni. am na ci benn volonté ngir mu daal di leeral ce qui est malheureux et tache la ci gouvernance su mag yi ces douze dernières années. c'est ça El Hadj Malick un an après mu mel ni France daal di xëddi. kenn lu ca jëm daa mel ni rees na euh, te te vraiment c'est c'est c'est dommage parce que il y a beaucoup qui sur le malheur des autres maanaam feebar moo ñëw nit ñëpp jaaxle ñu wuti ay moyen pour éradiquer cette maladie la ay nit profitoo ci duy seeni poos ba mu fees tey ñu toog ba heure bi kenn jàppuñu ci kenn mel ni daal euh, voilà et c'est le plus gros scandale financier ci 12 ans yi Macky Sall def ci bopp réew mi alors lii que Macky nekk fii que mu bañ fi nekk lu ñu war a leeral la. Mhm. parce que lii mënul mënul naax saay on ne peut pas bouffer des milliards comme sax ba pare toog jàpp sa njàmbur kenn inquiété wu la euh, ki sàcc ginaar fee ñu jël ko ni ko ràpp ci kaso bi. c'est pas normal et puis la diligence qu'il dans les dossiers politiques. Hmm. bu ñu ko defoon ci dossier bi kon kenn waxatu ko bu ñu nee benn opposant Euh, def na njombe wala def na dara ñu patam patamee ko fat fat ñu dóor ko dugal ci kaso bi hmm. ay milliards ñu jël ko luubal ko ci réew mi boobu ba léegi kenn ñu def enquêtes yi après voilà quoi hmm. kenn waxul dara hmm. c'est parce que dafa am ñu ñu mu neex on a mis le coude dessus. c'est tout. ñu doon waxee merci. mais Sénégal yi nga xam ne dañ ci doon dugal. Euh, seen ay cent francs seen ay téeméer ngir jàppale donc seen ay moroom Sénégal il ne reste que Euh, gouvernement bu Sénégal moo xam ñiy ñëw wala soit Macky Sall balaa muy dem ñu yëngalaat dossier boobu noonu. je mm. pense que euh, dina xaw a soulager un tout petit sax ñi nga xam ne ñoom ñoo di euh, Sénégalais yi. Mm-hmm. merci beaucoup jërëjëf Cheikh merci léegi léegi ñu jàll ci xibaar yi ñu tënk ko ak Cheikh Tidiane Dieng. <coughs> ñu